ce dimanche 10 octobre 2021 commune bu Saly Escale moo xewle journée d'investiture de monsieur El Hadj Sader le candidat de l'espoir El Hadj Sader le profil idéal pour la commune de Saly Escale et eh, yéen mbokki département bu Koungheul askanu Sénégal rawatina commune bu Saly Escale maa ngi liggéey Saly Escale ak El Hadj ñëw woote El Hadj Sader Dieng ndaw ñi El Hadj Sader Dieng jigéen ñi El Hadj Sader Dieng yaakaaru mag ñi pour un Saly émergent. waa Sénégal Macky ngi nii. ah kooku mooy gaynde Macky Sall xew-xew baa ngoog dimanche 10 Kër Samba Ndiambar à partir de 10 heures. journée d'investiture de Monsieur Aladji Sader Dieng comme à la mairie de Sali Escale si nee ne moƴƴi baba moƴƴi ɓinngel bonata El Hadji Sader Dieng ngi woo bépp doomu Sali Escale ci bii bés bu leen ko kenn nettali dimanche 10 octobre 2021 de 10 à Kër Samba Ndiambane ak El Hadji Sader Dieng le temps changement ndaw lu ko am